nal sant gis ngeen liggéey baa ngoog liggéey bi nga xam ne ak mu jot mbooloo mi nga xam ne ñooy doomi dëkk bi ñoo àndandoo di ko liggéeyal Serigne Touba gis nga bawun dara gis nga wëlis yaa ngi nii liggéey bi nga xam ne ndawi Touba yi at mu jot ñoo koy def muy waa ak Akyas di ko liggéeyal Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké di ko yóbbu nag ca sëñ Cheikh Saliou mu jox ko donga yi tey nag bawun dara gis nga liggéey baa ngoog camion yaa ngi nii ñuy duy lépp fi jege sil ñëwal ah gis nga tey jii gis nga ni gaa ñu génne mat laa yaa ngi nii bawun dara gis nga mbasin yaa ngi nii jëlal ma mbasin yi dañoo ñëw ba jëw andi mbasin yi tey mbasin yi nag xam nañu sëñ Seex Saaliw ku mas a wàcc alxuraan rek mbasin ya yim lay joxe ngi nii muy mbasin yu bari yu bari yoo xam ne gis nga ko mbooloo mi ñoo ko jël gis nga taxawaay gis nga murid saadax yi jàmbaar yaa ngi nii sëñ Tuubaa rek a leen ngeen jëf gis nga ko dara desut. ñoo ngi yëpp ci bis bu tedd bi di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha mu yàgg fi loolu te ànd wér di sant yàlla bu baax nag. moom mi nu may nu fekkiwaat ko ren di ko ñaanaat di ko yàlla yalwaanaat di ko saraxuwaat mu bàyyiwaat nu fi ba nu fekkee déwén ak yu ko weesu yi ci kanamam yëpp Cheikh Mbacke ni ko waxee rek ñun ay jaami yàlla lañ waaye alalu sëriñ Touba lañ sunu bunt Serigne Touba nag mooy Cheikh Saliou Mbacke sunu waajur bu tedd Euh, mbooloo mi nag moom ñun dañu ne ci kanamal waaye duñ ci dara yéene lépp rawatina ki nga xam te ni moom mooy sama lépp di sama xarit di sama mag di sama lépp Moustapha Seigneur Lo ak ku ma ko àndal moom ëmma ëmm ak fayam ni ma ñàkkee ak fayam nag noonu laa ko ñàkkee ci ñu ànd ak moom ñëpp kon li ci daal nañu bàyyi ba egg ci sëriñ bi incha allah ñu eggale ko. kontaan loolu di xamal ni yëf yi at mu jot day gën a yokk ndax mbirum Sëriñ Tuubaa moo demee noonu. ren ji yokk nan lu daawul def rek def nan ko ren ji ah waaye sëriñ bi moo toll noonu ak liggéey sëriñ Tuubaa ah ma lay laaj ci ba xam nag loolu nan la waaye mbirum sëriñ Tuubaa rek noonu. waaw loolu bu ci gis suñu bopp bu ñu ci suñu bopp ni ñu ñàkk a mënee reesal nu ñu xebloo noonu liy umpe mbirum sëriñ bi wax nga ko lenn lu ñuy tudd sëriñ bi jëmul kanam xawma ko te keneen xamu kon nag li lenn la ci pàcc yi ñu war liggéey sëriñ bi rek kon faaw day yokk rek ndax yàllaa ko yokk. ku ànd ak ku yokk nag doo mën a wàññeeku. jërëjëf samay mbir ci dunya lu mujj a ñëw ëpp la wéy ca mbóot ya lu nu wooteel sëñ Tuubaa mu dagg itam yëpp ñëw muy taxa waaye nag waayam jàmbaaram xaritam soppeem ku mu yàggal lool ñu xam ko muy Sëñ Lo liggéey bi mu liggéey ci liggéey bu am solo di ci taxaw taxaw am solo moo tax bu wootee Touba Gone yëpp ànd moom liggéey bi sëñ Touba bi kon nag Muntaxa loo ci mën a seere ndax kontaan nañu de lii daal an mu jot Sëñ ànd ak ñëpp def ci taxawaay am solo te sa xarit. Alaaji lii dañuy ñaan yàlla ni nu ko tàmbalee mu egg ci alhamdulilahi rabbil alamin ndax chaque année dañ koy def Signor Lo day ñëw ànd ay mbokki taalibeem ay xaritam ay wëlëreem ak i mbokkam ak taalibe Serigne Saliou moom nag boo ko séenee muy dox bul laajte Serigne Saliou la bëgg moom lay walle waaye yàlla sunu borom it suturaal na ko ndax mën nga doonu murit ca ñi ngay àndal du ngeen bokkub gis-gis waaye moom fi ko yàlla sunu borom dimbalee mooy ñi muy àndal ñëpp dafa bokk ak ñoom gis-gis gis-gis bi mu am nag mooy Serigne Bamba ak waa këram lu baax li nga xam ne daal moom la liggéeyal Serigne Touba ak waa këram di ko ànd ak ay xaritam ak wëllëreem yàlla na leen Serigne Touba mi nga xam ni moo am fay cay fay ak boroom Touba Serigne Saliou yàlla na leen fay. xam nga suñu ordinateur bu jógee doone Touba yëpp jóg ndax liggéey bi mu liggéeyal Serigne Touba dafay dëgg ci te la yow yaay ndam li nga liggéey rek na ndam lislaam bi jël nga raaya ba waxal kanam tàndal ma ya tapp nga sangub xawsu ya ndamul ci mboolem ya leeral te yaatal xutbu ba tapp nga kog liggéey na lool bu ëllëgee bañ di ko jal ñépp a jaxaj ñu dul ña gëm bu tedd ba ku deeti sàkk sarax ngir xam bu ni mbir nax day bëgg a xew te dunu nax ci yàlla buubu màgg ba ci gaayu baax ya fi newoon daa dajaloo ci yow sëriñ saaliw doomi xaw suba lii lee waral Mouwahiboul Akyaas yi ndaw yi dëkk bi di kuréel goo xam ne dafa lëkkale ay ndaw yu nekkee ci dëkk bu sell bii Serigne Saliou Mbacke mu allaaji Bara Fàllilu moom mooy ki jiite googule kuréel ñu mën ci ràññee ku mel ni Moustapha Mbacke loo kuréel googu ñoo doon amal seenub ziar tey jii ci gaaw bi dëppoo ak fukki fan ci weeru tam xarit atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar ci gàddaay gi yemoo ak le 30 septembre 2020 muy ab ziar boo xam ne yile ndaw dañuy dajale seenu ñàkk fàggu ci ay jumtukaay yu bari yu mel ni ki ay cin ay mbana ay basan ay dàll waaye it bépp jumtukaay boo xam ne ab donga dana ko yittewoo ñu jébbal ko kii di Serigne Cheikh moom Serigne Saliou Mbacke ziar boobu leen nag ñi ngi ko doon amal ci kër sëriñ saaliw gi nekk ci jumaay Touba. tarbiya jooy na neena wooy fu may jëlee ci sang buy defaru nit bañ leen di roy ci jaamu ak ci jàngu ba xel kooma Tuuba njàpp ndal ndookaala gën ak njibigel ngeejaan gota xabaan diwul ak ngaa bu jooy nañ sang ba say jikko moo de alxuraan say jikko moo de alxuraan kuy jéem a xuus geeñ bambulaan yendu di dem ak di fanaan du tax mu jot asaka ba adduna ji fi maas foofu nga jëm itam sa maas du yombu foofa ndax sa yombu taam yow sang bi bu yàlla yàlla nag ñu fayal suñ waaja fóot suñ wàggi xol yow mi nga xam ne yaa amal lépp lu am ci dend ba bu yàlla yow ñoo ngi lay dagaan xaboom ba moom nay walangaan léewa ngëm kulla samaan ci barki sur yonente ba lii nga xam ne mooy ay suñu àddee sàmm ko ci yow nga defal ko ci liggéey Sëriñ Tuubaa ñu ñaan yàlla ci mbooloo mi nga xam ne ñun ñëpp ànd ak sa bàyyi di ko wax si moom Moustapha Cissé Lo muy jàmbaar joo xam ne liggéey Sëriñ Tuubaa rek ko yitteel ñu ànd doo at mu jot mu def nii bu mu demee ba toll fii ñu dajale suñu addiya moo xam suñu bool la moo xam suñu dàll la moo xam suñu yére la ak luñ mën a am rek ni nañ ko yot sëriñ bi mu defal ñu ko ci liggéey sëñ Saliou bi ñu ñaan nga yàgg fi te wér ak nee na moo xam ak muy suñu matelas la. nee na ak matelas yi sëñ bi damaa gàggante ne ak suñu matelas yi ah waaw suñu yi. war kaa mu tubaab parce que loolu xalaat la loolu mun na dafa amay xale gan yoo xam ne daa dañoo wéetiliku lool ñu leen a la ci daara ja mu doon xalaat nag mat laa yu mu leen yu mu leen yu ma boole ak ñoom ñu demandoo waaw kon xam ngeen daam am nañu tawféex ah, ah, ah. ndax sëriñ bi dafa wax ni. Mhm. dafa am ay xale gan. Mhm. yoo xam ne seen ñëw nañu. mu doon xalaat ay mat laa far ñu indaale matelas yi. Mhm. kon am nañu taw feex jërëjëf. Ah, waaw ay xale gan yu ñëw. war a dem ca daara war a dem ca daara ja mu doon xalaat ay matelas ñu indaale matelas yi. jërëjëf Mbacke. kon sëñ Salim ngaa gëli des ka. <laughs> Moussa ah, waaw. sëñ jërëjëf. ah waaw Mbacke. mbooloo mi la. mbooloo mi la. waaw waaw toog leen rek toog leen cin yi ci la ak sijaada yi. ak yére yi. ak yére yi. ak satale yi. ak kopp yi. ak dàlli xale yi. ak bool yi. ak ay mbana. ak bali fëgg jaay. waaw waaw. ak oom madaar. ak yëpp. waaw nit ñi. parce que bokkoo ko kenn tool yee bari dafa sa bàyyi bàyyee bari mu ne ñoom doon wax doomi dëkk yi. nee na mën nga cee boole doomi daara yi. nee na li ma wax léegi ni doomi dëkk bi waaye ñu boole ci dongay daara yi doomi daara yi doomi daara yi doomi daara yi nee na xam nañ yittey daara loolu ndax ñun doomi dëkk bi lañ waaye doomi daara lañ ndax xam nañ yittey daara jërëjëf Mbàkke ne li ñu ànd lépp dongay daara yittey woon nañ <laughs> jëf nii moom la ñuy tuddee tawfeex. nee na jëf ju demee nii moom la tuddee tawfeex. nee ki ñuy jëfal yàlla na nu nangul. nee ki ñuy jëfal yàlla na nu nangul. te gërëmal ñu. sëriñ sëriñ te mi ngi ñaan sëriñ bi nee mi ngi ñaan sëriñ bi sañ ca sañ-sañ ba ko suñ borom defal ca sañ-sañ ba ko suñ mu fàggul ñu ci mu fàggul ñu ci fu suñu yéene egg fu suñu yéene àgg sunu man jote fa sunu man jote fa ak tawféexi jëfe jëf ji ak nangu gi faw ak ak ngërëm bi. Ah, ak tawféexi jëf ji ak nangu gi ak ngërëm gi kon ñoo ko déggandoo. nangu gi faw ak ngërëm li. nee na suñu jëwriñ ja daan na wax ni. wax ni. lu mu bari bari laaj na jëf. waaye jëf nag lu mu tuut yóbbaale na wax. waaye jëf lu mu tuut tuut yóbbaale na wax. ku ñëw di sàkku si xam ginnaaw jëf. gannaaw jëf ngeen jëf ju mat jëf. nee na rek te tàllal nangu ñaan. neen te fas nan fas rek te tàllal te nangu ñaan. jërëjëf Mbacke yàlla nañ fi yàgg te wér. waaye toll na fas ñu ko def. amiin amiin ok. bu ñu noppee ñu may yeneen taay yi. amin Mbacke ñu fas yàlla na fi yàgg te wér Mbacke amin yàgg fee ñëw yàgg la fekk Mbacke amin léeg-léeg nga gis ku tilim te doon lu ñu bi saabu ngay fóote ku nekk yor paagamba ngóobaan ak ubbi dongam ba paaya daa ya sax ak raaya leen te ñaanal sëriñ mu yàgg fi te wér ngi ci troisième édition liggéeyub xelkom bi liggéeyub koom bi mooy lan mooy niñ doon àndee dem togg ay xéewal suñ tollee ci mbàcc mi yóbbul donga tarbiya daaw yaakaar naa ñu ngi woon ci juróom benn fukki mbana ak euh, juróom 65 mbana moom lañ toog daaw yóbbu Xelkom bañ fa jógee nii lañ ko doon defee ndax troisième édition première année bi sëriñ bi moo ñu waxoon ñu fekk ko ci Poroxaan ndax jàppoon na ne liggéey bu sëñ Touba nangu la liggéey bu sëñ Touba nangu keroog fa lañ yendoog moom ci Poroxaan daaw ñu ko fekk ci Daar Xudóos bañ accès jàpp naa ne mbir la moo xamante ne ni ginnaaw tàkkusaan lañ ko ko yóbbul waaye sedd na xolam sedd xol goo xamante ne ni tey ji moo feeñaat ci ziar bi loolu nag duñ def lu sant ci mbokki taalibe yi ñi nga xamante ne nii góor jigéen mag ak ndaw dañoo bëgg Serigne Saliou gëm ko doyloo ko bëgg ko ci seen biir xol ba suñ nee liggéeyub Serigne bi ñoom ñëpp ñu fàtte seen bopp ñooñu la ñuy sant ñooñu la ñuy gërëm gis ngeen tey ni liggéey bi toll noonu lañ fas yéenee chaque année ñu indee ko noonu. mbana yi lañ fi doon indi ay bool lañ fi doon indi ay matelas lañ fi doon indi ay basang lañ fi doon indi satala sijaada mais tey li ci yéeme mooy bébé soog a juddu te nekk ca xel koom fàggu nañ leen xale yu ndaw yi fàggu nañ leen jigéen ñi fàggu nañ leen kon jëlale leen mag ñi dem nañ ba indi tey ay valisu jasneer ay mbase mbase yoo xam ne dañ koo ñëw ba pare moom sëriñ bi ci boppam mu wax ne dafa am mbir mu ci yéeme mooy dafa am ay gani donga yoo xamante ne nii doon na leen pare pour fàggul ay matelas far tey bi ñu ñëw ñu indaale matelas yi comme niñ ko defee daaw kon loolu tawféex la sëriñ bi moo ko waxal boppam moo ko wax ci làmmiñam tawféex googu nag dañuy ñaan ñu tajasee ngërëmul sëriñ Saliou képp ku teew ci siyaar bi daal Serigne Saliou mi nga xamante ne ni moom lañ doon liggéeyal moo mën a fay yàlla nañu boole ak fay yàlla nañu boole aw yiw képp koo xamante ni teew nga fi moo xam sa ñaq moo xam sa doole moo xam sa dërëm moo xam sa xalaat moo xam même da ngaa gàddu ci bool yi dugal wala nga gàddu ci bagage yi dugal ñoo ngi ñaan ci jëmmi Serigne Saliou Mbacké pay gi ñu bokk ko ñun ñëpp. bagage yi ren dafa mbirum Serigne bi moo demee noonu parce que dama doon ñaan yàlla daaw bi ñu indee bagage yi am ay mbokki taalibe yoo xam ne ñenn ñi ngi Suisse ñenn ñi ngi Italie ñoom ñoo amoon yéene yónnee ma ay bali fëggu jaay waaye ñooñu jamono ji ku ne xam na ne bitim réew ko fi moo fa am liggéey bi demeewul noonu mais Serigne Saliou ci ak ndimbalam may dox ba dal ci benn conteneur ci ndakaaru bu wàccee ay bagage yére boo fi gis kenn nita a ma ko jaay nga xam ne damaa daanu keroog soobu ci yeneen mur yi xam ne liggéey bi taam leneen ñiy jënd seen i bool indi Serigne Galas Kaltoom bu Cheikh Mamadou Lamine Bara ci suba fukki mbana la ma yónnee Alla Ndiaye Mara Ndiaye ñoo nekk ni ci sama ay jëwriñ lañ yoo xamante ni bagage bi jóge Touba ñoom xam nañ kenn ku ci nekk liñ ci barkeeloo parce que nit ñi ci ñoom lañ ko doon jaarale kon loolu dañuy ñaan ñu yàgg koo ànd yàgg koo taxaw daje cee ngërëmul Serigne Saliou Akiyas euh, ay yëngu-yëngoom mosu koo arrêté mooy togg xelkom yi togg dem yóbbu xel kom mooy doon waaj màggal gi màggal gi ren ku ne xam nga ne ndigal lañ ciy doon déglu sëriñ bi ni mu waxee ne noon lañ koy màggale noonu lañ ko fas yéenee màggale marche bu mag bi ñu doon def jàpp naa ne ren du am waaye du teew dinañ toog benn tàkkusaan naan café sant Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul comme niñ koy defee chaque année suñu yoroon milliard wala ñu yor or dañ ko ciy def Touba dañoo pare pour participer ci ñun lu ñu am sëriñ bee ko moom amuñu dara mënuñu dara yoruñu tus mais li ñu yor nekk suñu ñu ay commerçant àlla marché occas lay xëy yor magasin Mara Ndiaye marché occas lay xëy yor magasin mais su liggéey bi dañ ma ne dañuy tëj seen i place dañuy dem ñu jàpp yulli seen poos li ci nekk ñëw indi man noonu laa koy defee ñi gëm ne sëriñ bi war nañ koo jàppale ci liggéey bi noonu lañ koy defee kon duñ tudd ay lii lañ ci def le lañ ci def suñ amoon bato sarse ko ay bagage ba mu te li ci kanam raw li parce que chaque année ñi ngi ci troisième euh, édition bi chaque année bagage yi day gën a yokk bëgg nañ suñuy dem ba léegi di tegale ay dix camions vingt camions di ko sottil fii sëriñ Saliou parce que yéene boobu noonu lañ am yëg-yëg boobu lañ bokk ci ko liggéeyal kon yàlla nañ ci tase ngërëmal sëriñ Saliou di sant rek di sant mbokki taalibe it jàpp yëpp Euh, ndax euh, liggéey bi du ñuñ rek am na ci ñoo xamante ni gisoo leen euh, tegoo leen bët waaye amul benn yoon boo xamante ni jóg nañ ne ñoo ngi liggéeyal Serigne saaliw te defuñu ci seen wu ñaq Serigne Fallou Mbacke transitaire Serigne Fallou talibeb Serigne Saliou la ku gëm Serigne Saliou la noonu la ciy jàppee chaque année Euh, ginnaaw bi ñu santee Serigne Saliou moom jëwriñ la Serigne Saliou bu Cheikh Mahamadou Lamine Bara Mbacke moom mooy jiite kuréel gi mais Serigne Fallou Mbacke transitaire su ko tuddee tudd ku mel ne euh, Abdourahmane Ba nekk ci port di jàmbaar joo xamante ni heure bu ñu songee liggéey bi euh, mu mu jëf ci jëf joo xamante ne nii ñun daf ñuy yokk fit daf ñuy yokk jom noonu la ñuy sante tamit président Moussa Cissé Lo président Moussa Cissé Lo ku ne xam na ne bi ñuy togg nda togg yi di dem xel kom dafa déparé Dakar ñëw def ci alalam bërki démb bi ñuy départ lépp luy mbasee moom moo ñu koy wutal fàggul ñu ko yëkkati alalam def ca sëriñ Galas Kaltoom dinañ ko sant gërëm ko démb lañ ko woo ne ko liggéey bi ay cin moo ci des tey dafa xëy chargé fukki cin muy mbana yooyu noonu nga fa gis fukki mbana dix mbana la ñu xëy yónnee ne ñu suñ ca àggatee daa bëgg moom di sasoo liggéey bi kon sëriñ Galas euh, Kaltoom ñoo ngi koy sant di ko gërëm waaye soxna yi dafa am ay jëwriñ yu jigéen soo tuddee jëwriñ ñu jigéen ci Mawahibul Akyas sa xel day dem ci soxna maam Fatou Sidi moom Cheikh Abdou Lahat jëfam dafa ñëw ñëwaat soxna Faama Ndiaye bu Serigne Saliou noonu la bëggee Serigne Saliou jëfam dafa ñëw ñëwaat soxna Musli Sall ñooñu ay jëwriñ lañ yoo xamante ni ñoom ay ay jigéen lañ mais dañoo bokk ci kuréelu Mawahibul Akyas di ci jëf-jëf ju am solo baara gay kilim oal ñoo ngi koy sant di ko gërëm ndax Euh, liggéey bi jëf na ci jëf joo xamante ni faaw ñu bàyyeekoo ak Serigne Touba mi nga xamante ni moom la yaakaar ndaw la ndaw lu am jom ndaw loo xamante ne ni Serigne Saliou dong la yaakaar euh, gëm ko dëkk ci dëkk bi di doomi dëkk bi di def ci dëkk bi saa su nekk kon euh, suñ Mor daal loolu mooy liggéey bi nga xamante ne ni ñii ñoo ko ànd di ko taw yi soxna Fatma Lo soxna Fatma Lo mënu ma koo ñàkk ba ñaa sant moom it noonu la ci taxawee noonu la ciy jàppee kon ñoo ngi sant ñëpp sëñ fa sëñ Cheikh Mbacke Parma Parkin liggéey bi noonu la ciy sonni kon mbooloo moomu noonu ñoo nekk ñoo ànd ak ñun ndaw ñi di jël seen alal di ñu jox saa suñu leen soññee ci liggéeyub Serigne Saliou bi duñu ñu duñu ñu insisté dañuy xool la nga xamante ni mooy defar bés bi ñu def ko kon ñoo ngi sant ñëpp di di di gërëm ñëpp di baalu àq ñëpp di baal àq di ñaan yàlla suñu borom ñu yàgg koo ànd euh, yàgg koo jébbal sëriñ bi xol yi daal sedd nañ fi mu toll nii jërëjëf